<laughs> ngir nag bu neex fu ñu mënti fekk ñun ñëpp bokk li ñuy taamu te mooy l'écran l'écran fi la mbëggeel bi gën a laissez ce bois aiguille vous soirée Ramadan avec vos boissons phares Commencez avec une explosion de saveurs avec votre classique Vinto, parfait pour accompagner vos délicieux repas. Ou optez pour la douceur exotique de notre gazelle ananas, pomme, limonade ou tonique qui se marie à la perfection avec vos succulents plats. En cette période bénie, profitez de la promotion spéciale sur votre boisson top qui passe de francs à francs seulement. Corbe Action parce que chaque gorgée est une célébration du partage. Cherchez un moyen sûr, rapide et moins cher pour recevoir de l'argent de l'international. Choisissez Orange Money avec notre large réseau de partenaires. Orange Money Europe, Ria, TapTapSend, Western Union, MoneyGram, PayPal, PaySend et Smallwall. Et en plus, le retrait est gratuit dans plus de 30 000 points de vente partout au Sénégal. Qui dit mieux? Absolument personne. Orange Money, gën a noppale, gën a gën a yomb. Orange Money est un service de Orange Finance Orange Nous sommes dans le mois béni du Ramadan. Coca-Cola se joint à l'esprit de solidarité et de joie en rapprochant les familles. Ainsi, lorsque vous rompez votre jeûne et vous vous réunissez avec vos proches, tête de Coca-Cola, votre choix rafraîchissant pour célébrer ces moments spéciaux. Coca-Cola vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, un Ramadan Moubarak. Que celui-ci soit rempli de joie, de paix et de souvenirs chéris. bëñ yu dëgër dafa am solo ci dundu doomu aadama reetaan gu neex daf lay yokk ràññeeku te it ay xarit dina la yomb ci soo amee xeetu gémmiñ bu neex pour sama njaboot signal 1 2 3 la taamu ndax moom njëriñu ñetti dentifrice la boole moom rekk benn dafay xeex kari ñaar dafay weexal say bëñ ñett bi mooy daf lay jox xeetu gémmiñ bu neex neex Royal 1 2 3 daal mooy njëriñu ci benn. Nous facilitons les échanges commerciaux, acheminons ce dont le monde a besoin là où il en a besoin. Imaginez tonnes de noix de cajou, produites, conditionnées et distribuées du Sénégal vers le reste du monde. Parce que lorsque les échanges commerciaux sont fluides, de nouvelles opportunités se présentent. DP World, change what's possible. Bientôt le ramadan, un mois béni rempli de bienfaits. C'est clair, mais être à toute une journée, ce n'est pas facile quand même. Je ne te le fais pas dire. Rester toute la journée sans boire ni manger, ça affaiblit aussi bien le corps que l'esprit. C'est pour ça que tout le monde somnole plus facilement durant le ramadan. Alors messieurs, rien de mieux que de commencer le jeûne avec des aliments sains et nutritifs. Heureusement que le mois de ramadan rime

Diapané, euh, nous avons choisi la route des hydrocarbures communément appelée Yonira en provenance du côté de Mangazin, Diarekonak, Cafétéria, Tableserai vers l'ambulancerie Kappa, Donc il y a moins d'embouteillages malgré cette voie, elle est souvent choisie par les camions. Donc au gros porteur météo, Mungen Fadjar, Dadi une progression euh, sans perdre beaucoup de temps. Maintenant, si vous accédez au niveau pour l'échangeur, l'ambulancerie Kappa, vous avez le choix de continuer la circulation toujours sur la route d'ailleurs en partance de Reska wala sax ngeen jël l'autre sens à savoir la voie qui vous mène vers le change d'Anne doore ko si parc bi jàpp service technique foofu la aussi pas d'embouteillage dans les deux sens même situation aussi au niveau du rond-point Stade Maris là-bas aucune difficulté à signaler et n'importe quel sens que vous venez mun ngeen di au niveau du rond-point daal di wéy progression bu ngeen dépassé jaaree ko de captage génnee ci euh, gendarmerie bu front de terre concernant wat yi xam ne ñoo bëgg dem du côté de Castor wala sax ngeen bëgg dem du côté de Xar Yàlla aussi sur l'autoroute euh, Seydina Limamou Laye foofu aussi c'est pas trop compliqué malgré nous avons noté beaucoup de ralentissement mais teewul euh, mun ngeen fa jaar daal progression de foofu wat yu bëri ñoo fay transiter tax na ça circule tout doucement sur l'autre sens à wat yi nga en partant vers le, euh, vers le pont de l'émergence, Gareko, au niveau de la mmh. merci beaucoup Papa Alé Cissé dinañ dajewaat nag euh, incha laata jukkib xibaar yi euh, tax ko yàgg noonu kon nag waxtu wi bu jotee rek xam ngeen ni ñoo ngi si pàcc bu ñaareel bi ma mbay peut-être dinañ ñëw ci li si moo wax ni moom la moom laa gën a mënee mooy relance <laughs> te relance tey jilee tribune yéene kaay euh, mhm. ci moom la ñuy sukkandiku daal di euh, peut-être euh, waxtaane li nga xamante ni moom moo di image bi feeñ démb diggante mhm. président Macky Sall ak président Ousmane Sonko Diomaye Bassirou mais moi ma grande question c'est que fait la présence d'Ousmane Sonko parce que c'est quand même une première ñu gis un président sortant et un président élu lors de leur rencontre ñu gis fa président de parti du président président moom <laughs> ah, question. yaa ko moom kay interpellé maa ko ni est-ce une première tout d'abord. je ne sais pas si c'est une première parce que bu dee première it euh, ça doit parce que bi euh, euh Ablaye Wade di gagné Abdou Diouf. Mhm. Ablaye Wade était chef de parti bi Macky di gagné. Abdoulaye Wade il était chef de parti donc il n'avait pas besoin disons d'un mentor à côté de lui pour se rendre au palais de la République bii nag c'est un peu l'image euh, qui a circulé hier et la grande question bi nga posé d'ailleurs lan lay Ousmane Sonko di def palais de la République euh, au cours d'une discussion que j'ai eue d'ailleurs hier après-midi ak ay ay nit euh, am na sax ko avancé ne est-ce que du Macky Sall moo ko invité bon président tamit en tout cas fa mu ne foofu la war a ne. Euh, bu ko neexee tamit mën na ko invité. Mhm. mais du côté de de de Diomaye euh, mën na xaw a xaw a froissé tuuti. Mhm. si si je peux mu permettre l'expression le mot. Mhm. Euh, parce que dans ce contexte Diomaye la ñu fal. et depuis sa candidature ñu ngi doon laam-laame wala di poser wu la question moom bu faloo. est-ce que moom mooy gouverner wala moom ak. Euh, Ousmane Sonko ñoom ñooy bokk nguur gi. Euh, moom bu faloo est-ce que c'est lui qui va diriger le pays ou moom bu falo est-ce que post vice-président du ko teg pour Ousmane Sonko. en tout cas autant de question yoo xam ne relancé nañ ko démb avec cette image bi nga xam ne am nañ ko au palais de la République. et fii li ñuy craindre mooy euh, sama crainte la crainte ñu bëri. c'est qu'à côté du président élu, de manière officielle, et qui va être installé officiellement pour qu'il soit le président officiel du Sénégal, à côté, on risque d'avoir un président officiel. Mm -hmm. Ça veut dire que Est-ce que Diomaye va prendre de lui-même les décisions qu'il aura à prendre ou ces décisions seront euh, euh, dictées par son mentor Autant de questions, mais de toute façon, présence Ousmane Sonko au palais de la République, ce n'est pas la première fois. Mm-hmm. Parce que nous avons fait le quotidien de Covid-19 que Macky Sall, Wote Wona, Wo Nyep, Ousmane Sonko dans un sursaut entre guillemets de patriotisme dem na wuyu président de la République malgré toute l'adversité qu'il y avait entre eux et ñu ngi fàttaliku sax jamono jooju bi Macky Sall di gagné en 2019 Ousmane Sonko ak yeneen candidats yoo xam ne ñoo demoon élection présidentielle il s'était gardé même de reconnaître la victoire de Macky Sall mhm. il s'était même gardé de lapple monsieur le président et mais teewul dem na toog ak moom déglu ko ba pare wax ko moom tamit la mu xalaat ci mbir ma et la mu xalaat je pense que loolu la wax ginnaaw bi mu génnee wax ko taskatu xibaar yi e Ousmane Sonko moomu démb la fa delluwaat palais de la République pour toog devant tout le monde ak euh, waxtaan ak moom ak Macky Sall c'est vrai que c'est le président élu qui a été reçu. Mhm. mais la présence d'Ousmane Sonko mën na encore susciter waat toute une série d'interrogations autour de sa relation autour de la gestion prochaine justement du futur est-ce que day doon une gestion collégiale entre un président et son président ou son mentor naka lay demee <clears throat> certains disent que peut-être Ousmane Sonko gagnerait à se retirer un peu bàyyi Diomaye exercer parce que Diomaye la ñu fal e que moom mu dem gérer parti bi ak yeneen considération en tout cas Mamadou Fofana on nous a prôné ou on vendu du Sonko moy euh, Ousmane Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Ousmane